gars yi salaamaaleykum gars yi seetaan benn vidéo Ndella Madior léegi mu ne képp koo xam ne ni da ngay jël sa doom lam ko jotoon a defal danga ko koy fay danga koy delloo xaalis mu wax la ndàmpaay li ñaata la fare ci moom ñaata la ko defal nga delloo ko kon gars yi Ndella Madior Diouf deful ta yàlla tax démb laa def vidéo ne day business ci xale yi am ñu may saaga man lépp lu ma wax Sénégal dafa am fu ma ko teg day business ci xale yi dégg naa nag jàpp na Ndella juuf Diouf déglu li muy du mujjee fenn emploi yi ñoom lay dugal ndeela du yàgg ca kaso ba day génn xëpp leen seen bët ngeen xolli li ma leen wax mais nag ndeela deful dara parents yi la rek ana seen yaay yi ak seen papa yi ñu jur xale yi ñooñu billahi yawmal xiyaam dana métti yawmal xiyaam dina métti barke alxuraanu karim ana seen yaay yi ndeela deful dara sax seen yaay yee def dara ak seen papa yi ana seen i parents non non c'est route mais li dafa ñaaw salaamaaleykum gars yi Bye. léegi salaamaaleykum gay am na benn xale bu dee ci gétt gi nga xamante si nii Ndella Madior Diouf jëloon na leen engagé leen Ndella Madior Diouf dafa jël ay xale ñi nga xamante ni dañ leen di ëmbal yaa ngi dégg ñu ëmbal seen yaay mënuñu leen a yor mu récupéré leen ak xale yu ñu sànni ko këram di leen yar ak di leen toppatoo loolu nag Ndella Madior Diouf xaalis bu bëri la ci am Ndella Madior Diouf saa yu amee ay gan rek day jël xale yi solal leen ay yére yu rey tabaxal leen ay bàjj ba seen doox dooxu yaram yi du ngeen ko gis ak ak seen fii dul mën a xam ne seen ñaam yu dugg na seen wa te xale yaa ngi bëgg de dee bu ngeen mun ta yor xale yi bàyyi leen doomu jàmmoor yi ñiy nangu ñu leen di ëmbal tamit yéen ko def bay sànni seen i doom dee la Mandione Diouf xale yi muy yar ñi ngi mën a ay ay sindax yu ni sindi boo leen xoolee da nga yaakaar ne Éthiopie la ñu juddoo wala Angola te ay sénégalais pire nan lekk ñu naanuñu xale yaa ngay bëgg a dee dee la Mandione Diouf boo mun ta yor gone yi bàyyi leen boo mun ta yor xale yi bàyyi leen kala yaa ngi dee dañ ciy business nag xaalis bu bëri leen ci am ay kilifa ñoo set ay autorité yu mag di leen jox ay xaalis bu bëri ay million ay milliards pour ñuy toppatoo xale yi duñu ko def seen bopp la di tal di dem ci ay restaurant yu baax di xëy ñoo ay parfum yu baax seetaan xale yi xale yaa ngi dee dee la maa jur juf ñu koy dimbali waaye dimbaliwul xale yi ay waay ngir yàlla ak yonent bi jóg leen ci doom yi nga xam te ni moom la dee la maa jur juf dajale ci ak këram wala am roq di leen yar ñii duñu ay kanaara junu ay bëy junu ay sidax junu ay bët bëtër boo xoolee xale yi koo ci gis ay faama ma ay ay kàmbam diggi dooxu ñii seen ngaam yi dugg nañ ci ay porte oto kenn xamul luy niroo da ngay am na ku ma ci gis pour man sax Éthiopie la juddoo am na koo xam ne ni boo gisee moom da ngay foog ne angolais la du sénégalais dee la baa jóor a gi rey xale yi xale yaa ngi dee lii jaaw na de ba ma gisee vidéo yi damaa jooy maa ngi bëgg a dee ay waay wallu waay wallu justice pour les enfants di ngi dee wasalaam